yenn euh, faveur yu bari yi mais je suis désolé inégalité du fi gaaw a dañ mhm. les pauvres vont continuer à être pauvres et ngay liggéey di gën a appauvrir sa bopp mhm. xam nga aujourd'hui Bassirou Diomaye li ko permettre mu mën a am kër à euh, à Mermoz mhm. ni ko saa doon expliquer xëy na ab syndicat da ko bootu boole ci xeex et puis mu xëy na am euh, salaire bu koy war a mën a permettre muy def yenn investissement yi à la banque mën ko wóolu xam ne kii c'est quelqu'un de solvable ah. maanaam ku ma war a mën a mais aujourd'hui ku mel ni Abdou Khader bu bëggoon jug tey ne xaaral man kat damaa bëgg a jug pour dindi terrain wala parcelle waaye bu ñu xoolee sa salaire banque bi danaan la mais yow da nga maa yëpp wala bëgg yow xanaa kay da ngaa bëgg kon mm-hmm. yow sa giirub dund dootoo dundati <laughs> te banque am na lu mu mën a teqal ci sa salaire am lu mu mm-hmm. mënta teqal ci sa salaire mm-hmm. donc il faut faire de telle sorte que Abdou Khader tamit li muy gagné ci salaire wax dëgg yàlla mu mën a permettre mu relever niveau de vie mhm. il y a que comme ça la ñu a def pour xeex et inégalité mhm. mais il ne s'agit pas nga xool benn directeur général parce que soit c'est le CV mhm. wala parce que parcours bi la Euh, même bu mérité millions de francs CFA alors que chaîne bi nekk ci suuf ñoo ñu ñoo gën a sonn Ismaïla Yassine loolu itam injustice la mënuñu réduire train de vie de l'État dans des conditions comme ça il faut ñu vaincre les inégalités na loolu lañ koy fay mais gëm naa ne bu nu ko proposé woon ne boppam day bañ du ko nangu ci ni ma ko xamee bokk mm-hmm. ak ci li mu ñu jot a wan boobu ba tey mm-hmm. mooy ne euh, dëgg la am na ay bor ca banque ba ñan ña ngi koy wax waaye c'est le chef de l'État c'est des c'est ay bor la yu ñuy gaaw a éponger très mm-hmm. rapidement possibilité bi mu am nag keneen a kenn di doomu sénégalais amu ko te comme nag sunu exploitation pétrole day door a juddu bébé la liir la yeggagunu foo xam ne wax dëgg yàlla sénégale bu ne mën na cee gis boppam mais mën nañu réparer yenn injustice yi am ci yenn direction yenn ministère ba ci wàlli sax ci lépp loo xamante ne secteur de développement la ci dëkk bi pour que inégalité yooyu ñu xeex ko mu dañ ko fi mu jeex une bon fois pour toutes. d' accord euh, Saa Wolof très ah. rapidement Ahmed Suzanne Camara dossier bi dañ ko criminalisé ubbi nañ sax ab euh, information judiciaire. waaw <laughs> waaw kilim bi wax nga dëgg njuux mi maa ngi koy taal waaw kay yaa jëf man de kër yu kër yu moo njuux mi mooy kilim ah, euh, bi waaw ah, numtulati kër yu kër yu moof yi ñuy sànni di par gars yi internet nañ bàyyi yooyu nañ may kër yu weex dañ mooy kër yu weex waaw <laughs> waa xam nga Suzanne. Mhm. dama jàpp ne amul sens. parce que tamit bari na woon ñoo tooñ dossier bi toog di xaar. Mhm. wax dëgg yàlla ku ma mën a wax tey waa kër nu ñaari way takk der yooyu nga xamee ne tey voilà ñooñu lañu ñu tu ñu faatu ci anam yooyu nga teg ay tuuma ci seen kaw te loolu dem ci wàllu crime tey bis bu ñu la tegee feneen dossier yi fekk la fa ah yaa tooñ sa bopp. wax ji nag man li ma ci waxoon la am na keneen ku ma posé sànq wax man ndax fenn saaga la dama koy waxaat fii fen du saaga mais mën naa raw saaga lu tel ni président de la république mhm. ku mel ni Diomaye di dundee crédibilité bu doon crédibilité du toog fii mu toog mhm. ba tey nit ñaa ngi ko respecté mhm. suñ jékki-jékki woon ñëpp wóoloo di ko man de bis bu ma ko wóoloo di ko woon mu wóor ma ne lu mu wax du dëgg wala li mu wax keroog du dëgg bala koo Suzanne Camara wax am naa jubub wala fitu taxaw wax ko ko. Mm-hmm. même bu ma dee dem kaso parce que daan naa ko wax Macky saal mais ku ma ci wax dama la yóbbu dama koy man a prouver. maanaam boo nee nit da ngay fen te prouver ko loolu. Macky Sall bu ne du ma masa fal sama njaboot. Mm-hmm. lu jóge ci man duma ma ko masa nommé ba pare nommé Aliou Sall loolu wax ju dëgg la. ku taxaw yegg ci kàddu yi ko euh, kee wax soo taxawee ne moo wax lii te lii yonent bi nee na dana naaw feq ñetti jukko la. Mm-hmm. wax naa ko avant élection ñuy jëm wax naa ko. nee na bu la joxee rendez-vous fen la faussé ko maanaam bu la waxee fen la su la joxee rendez-vous ko boo ko wóoloo mu war la mhm. war na askan wi ci bu mu demee parce que spéculeusement boobu muy waat wàcc dàqonte na ak jël rapport petro bi jox ko Franck Timis mhm. loolu wor askan wi la sàmm alalu réew mi jël lu mel ni building administrative ñoo njëkk ne dix-neuf million mm-hmm. ba tey mu yegg cinquante million loolu leneen la mm-hmm. taxaw ne du ma def li def ko loolu kàcc la bu ñu yóbbu woon saa wolof taxaw ne Macky Sall li waxu dëgg même bu yeggee ci fii kee wax ne baatu fen walla dara mais yow yaay assumé mm-hmm. bu ñu la fa yóbboo mais wax nga dëgg léegi nag Suzanne bu fekkoon ne wóor na ko ne Diomaye président Diomaye loolu la def mais mu taxaw wax ko parce que wax gi li muy ñaaw ñaaw def gi moo gën a bon. Mhm. te président warul wax lu dul dëgg. Mhm. léegi nag mu des moom na mën a pour ne président Diomaye waxul dëgg. Mhm. mënu ko. El Malick Ndiaye dem na plus loin que loolu parce que président Diomaye bëggul woon a yegg foofu léegi nag loolu yow boo ko waxee tey def nga lu raw sax saaga. parce que lu njiitu réew mu taxaw di wax dëgg nga taxaw ne waxul dëgg. ñun ñii ñëpp li tax ñu mu am suñu respect parce que njub la ñu wan baax la ñu wan doylu la ñu wan gore la ñu wan. Mm-hmm. ñun bu ñu wóoroon ne du wax katu dëgg mais duñ ko fal. loolu bu ko waxee loolu tey war nañ ko càmbar. Mm-hmm. parce que waxam la crédibilité boobu moo tax waa CEDEAO wóolu ko man koo doxloo. Mm-hmm. yenn yenn doxi moo tax mu am gëdd bi mu am ci àdduna bi mën a taxaw tey fee ci JO bi. wax fa dëgg boo xam ne ñëpp mu dog daw seen yaram. bis bu ñëpp xamoon ne du wax dëgg buy wax kenn du ko déglu. day wax pare ñu ne daa wax rek. loolu laa ciy tontu. Hmm. ci nga xamee ne loolu la mais nag wax dëgg yàlla bi muy tooñ ay jàmbur di leen teggi tuuma wala di leen naqaral wala dem naan diw dañ koo war a rey te loolu menace de mort la. léegi hmm. ñooñ bu ñu toogee ba nag ni ñu demaat porter la plainte ay naan daaw laa ko waxoon wala nàngam ak nangam léegi nag problème bi mooy. li dal Ismaïla loolu dugg ci amnistie bi. dugg mooy la Assane Mesere waxoon rek. Hmm. saay saay bi. nee na benn verre bu ñu lay kii verbaliser mu toj nga ne lii ca jamono avant amnistie bi la tojoon. te bu ci amnistie bi yóbbaale na ko. waaw te amnistie bi yóbbaale na ko <laughs> loolu la Assane Missiré wax ah, ah, de ah na da ngaa dàq da ngaa nangu euh, reconnaître chroniqueur am gi meilleur chroniqueur. Assane Missiré daal ngi noonu rek def lu ko sax. <laughs> loolu mooy wax <laughs> léegi nag comme waxoon nee na parabrisme bi ñu koy doon verbaliser. Mm. ja police bi jàpp ko ma naan ko lii ca. amnistie bi yóbbaale na ko foofu la affaire bi kon boo jëlee Fulbert Samb mm. nga teg koy tuuma ak yu demee noonu jàpp ne amnistie bi yóbbaale en tout cas bi ko Ismaïla Madior Fall waxee dootu ko dolli kon leer na nit ñi ne amnistie bi yóbbaale ko léegi nag buñ ci ubbee information judiciaire mm-hmm. jege woon na régime bu njëkk bi mm-hmm. buntu mën naa fee tey nit mënu ko ak loo ko mën a waxee tey ak doonal Seydi Gassama waxal naan ay ratifié nañ lii wala nangam am ngóor jigéen ratifié nañ ko di mm-hmm. Euh, kii wu OHADA ci wàllu nu mu tuddati nu mu tuddati jigéen sañaa def avortement médicalisé wala yu demee noonu. Mm-hmm. ratifié nañ ko di lu tax lu tax laaluñ ko ba léegi ci Sénégal parce que askan wee nanguwul. Mm-hmm. loolu tamit war nañ ca xool nit booy dem di ratifié dara war nga xool nu ci sa askan. Mm-hmm. taxawee imaam yi euh, paab yi ci jàng bi wala ceddo yu mel ni ñun ak yu dew yu demee noonu. ku ci nekk nan la ko gisee. mais doo dem rek loolu sax war sa askan la parce que réew boo leen di jiite tey da nga ñëw ne leen ñoo bokki valeur danañ indiwaat valeur yi nangam yooyu yëpp mm-hmm. yaa ngi koy wax ak yooyu mm-hmm. ñu voteel la doo dem rek loo dem ratifié ko mm-hmm. moo tax boo ñëwee fii askan wi dañuy bañ protocole protocole de Maputo laay wax damaa juum naan OHADA ngeen ngeen ngeen ngeen jéggal voilà voilà pour protocole de Maputo laa wax mhm. tey def nañ ko mais fii fan nañ fi tool six pays rek xaw ma ñoo ko kii sur les cinquante et quelques dëgg non ñëpp mënuñ ko gis nga àdduna bi am na foo xam ne gis nga yàlla moo ñu gën a xam suñ bopp mhm. nit ñi mënuñu mel comme ay libertinage mënul am ci àdduna bi te am na ci loo xam ne boo ci toppee tubaab yi libertinage ngay am mhm. ñoom bu ñoom sañ nañoo jël mission secret ñu fekk ne la coppet def ak yow am ak yow nu ñuy def ak yow wala yóbbu la beneen dëkk. Mhm. parce que xam nañ ne loolu mënuñ koo def. ana du dañuy wax liberté rek ana Edward Snowden la xaw ma ak ñooñu. Mhm. lu tax mu mujj daw dem feneen. Mhm. te Amérique moo la gën a mën a dem ci ci yooyu lu tax mënut sanctionné Israël ba nag ni tappale yi ñuy tappale ci yooyu ak yu demee noonu. mënoo condamné ke kon tappale yooyu ci boppam am na lu réew yëpp mënta ànd. nañ ko respecté ku ci nekk. si sinon mooy nekk li Sonko waxoon rek procès casus belli. yaa ngi yee fitna baax na euh, temps bi jeex na. mais kenn ku ne naa la may benn question mais Mamy daf dama la réserver benn question boo xam ni kii ba léegi kër bi daf koo booleeg moof. weex naa la wax.